Madame la ministre Mariama Sarr jëwriñ ji ñu formation professionnelle et l'apprentissage donne koo xam ne ku ñépp xam la ci langue politique bi jaar na ci mairie bu Kaolack nekk fukkeel ak ñeent maire bu Kaolack

di soxal formation professionnelle et l'apprentissage muy ko xam nak ci geneen wàll talibé la di xitma ci ron sëriñam Cheikh Ahmed Bamba Khadimur Rasoul, jigen ju am pasteef jigen ju am taxaway ci réewam moy kan ñu tewlu ci géwélam di communicateur traditionnel Cheikh Fall man la Cheikh Fall xam naa ci moom dara ndax yàgg na ma ànd ak moom bi mu doonee ministre de la femme quinzième de nu faboon ko posoon ko ca jamonoy ministre yu njëkk ya waaye bi mu dellisee da ko tàggantiwaat quinzième de la duggaat ñu duggaat ci région yi jigéen ñi damu ci Tamba Matam Kédougou Casamance Wëringara Mboro tubaarkalla macha allah dëkk yooyu

laaj nga koo xam ni nag askan wi suy am woy waaye damaa tegg tuur laaj nga jigéen ju fidèle laaj nga jigéen ju am jom laaj nga jigéen ju nangoo daa dooleem laaj nga jigéen joo xam ni nag tubaarkaan la néewul suma dóor góor benn yoon te simaw la benn yoon lay tooy di laaj nga koo xam ni nag APR bi mu sosoo dafa wut ñëpp gannaaw ànd ak président Macky Sall tubaarkaan la macha tey boobu APR taxawagul boobu gouvernement taxawagul. ñu ànd ak ñeneen ñi mel ni moom ca fidèle moom nit la koo xam ni toogul ba tey mu ànd ak président Macky Sall nit la koo xam ni nekkul ci benn yoon walla benn parti ba tey mu dugg si ci APR bi président Macky Sall ni bëreet taxaw ngir créer yoonam muy APR bii ci la ànd ak moom muy ministre Mariama Sarr ministre Mariama Sarr na soo ko dee laaj doo juum Kaolack la dëkk ministre Mariama Sarr doxalin wu jekku ne doxal na ko ministre Mariama Sarr la macha allah bu yëkkatee loxoom ca Kaolack ni man la kaneen ñi mënut a taxaw ni man la parce que amu fa dendandoo ministre Mariama Sarr nit la koo xam ni tubaarkàlla góor ñu yaafus ñi sax delee leen a rocci waxuma laa jigéen ña tubaarkàlla macha allah samp na ndëndam ca fa mu dëkk mooy Kaolack ak goxam xëccoo mairie ba ba gañ a mairie ba réewal leen 65 cinq pour cent ministre Mariama Sarr ñu juge ca nommé ko ministre de la femme mu def ne ñu baax ñu daan def taxaw takku temm taxaw ci jigéen ñi jàpp jàppale leen ànd ak jigéen ñi ministre Mariama Sarr mu juge foofu mu génne ci ministère bi ñu neme ko fa neen wëlbatiku waat ko ministère de la femme ñaari yoon la fa jaar bàyyi fa trace bo xamni nit doot fa bàyyi trace bu mel noonu ñu jóge ci loolu jox ko fonction publique fonction publique kenn ku ne xam na ne na mu mel bu njëkk góor gu yaafu sax boo ko fa namee mu échec waaye tubaarkàlla fa fonction publique nekkoon da ko faa jëlee yóbbu ko fa neen foo xam ne keneen ku fa ñëw bu tegee loxoom gëm lu mu bëgg mën na koo am parce que day dem ndax la fa nekkoon ci dag li ko nekkoon ci xaaxaam li ko nekkoon ci métti métti lu ci nekk Mariama bay na ko ba nooy nooyee fa ne ministre Mariama Sarr nu jóge fa nag tubarkalla macha allah nome ko fii nu ko nome tey am nañ yaakaar masta jaar fenn fu échec masta jaar fenn fu ñu naan acim jigéen la joo xam ne néew suma doon góor du wax lu mu gëmul du def lu mu gëmul dafa fidèle ànd ak jigéen ñi bu njëkk nag su président Macky Sall waree départ mu Fuuta wala mu dem war a dem Kolda wala mu war a dem euh, Wëringara min ñu bari dañuy jël vol départ dem waaye bi mu nekkee ministre de la femme fu président Macky Sall day jëm ba Matam xam nga nu muy def day dugg ci oto yi ànd ak militant yi ak militante yi départ mu jiitle dëkk bu mu wàcc muy région muy département muy village tubaarkalla macha allah wàcc fa waxtaan ak jigéen ñi dimbali leen.

mi nekk maire ci commune de Kaolack quatorzième maire treize yi passé yëpp ay góor góor lañu ñu moom mooy la première femme maire bu nekk Kaolack bu téye maire bi gouvernement amaat président delloo ko ministère de la femme mu liggéeyaat fa liggéey bu am sol defe naa ne jigéenu Sénégal xam nañ bu baax li Mariama Sarr def ci ministère de la femme jëmale ministère ba kanam nag jëmale ministère ba kanam ministère de la femme jigéen ñëpp euh, sawar ci bëgg ko beneen gouvernement ñëw mu jox ko ministère de la fonction publique ah, ministère de la fonction publique boobu tamit ba mu fa ñëwee am na fu mu fekk ministère bi waaye am na fu mu ko yóbbu ba mu fa ñëwee la agent yi am indemnité yu mu leen jox ndax dafa ñëw rek xool ni fonction publique bi kat liggéey daanaka liggéey bi yépp ñoo ko yor ndax lépp luy këyitu administration ci ñoom lay jaar avant muy ñëw koo daan wax yóbbu fonction publique day defe ne punition la ñoo fa nekk tamit di bind ne dañoo bëgg a dem waaye bi mu ñëwee moom moo suqali ministère bi fexe ba agent yi am ay indemnité di leen fayal ay formation ñuy jàng moo fa indi euh, restaurant restaurant agent yi ñu subventionné seen i plat dootuñu génn di dem di jëndi ay lekk ci mbedd mi ñu ci restaurant mu ñëw indi fa arbre de Noël di feetal xale yi ndax moom yàllaa ko xiir ci xale fépp fu mu nekk rek day fexe ba ñu fay liggéey ak seeni njaboot yépp mu nekk leen ci def leen ci ci ci jàmm condition matériel lépp lu ñuy liggéeyee ba mu taxaw si lépp nekk sur place ba tax agent yi am sawarte ci seen liggéey foo daan wax ñu ne madame la ministre Mariama Sarr nañu ko fi président de la république bàyyil ndax bu mu ñëwee gis nañ fi mu jëlee fonction publique ak fi mu ko yóbbu. waaw xam nga président Macky Sall nit la koo xam ni loo foog ni xamu ko xam na lu ko raw tey daanaka booy seet euh, moom Mariama tey boolewuleen. xam na fidelu Mariama xam na duggub Mariama ca wax bu am yàlla moo ko yooyoo waaye Mariama du wax lu mu noru mu ànd ak ñun démb moo tax nag jaar-jaar yi Mariama jaar yëpp te président Macky Sall ànd cee moom nga gis nag ndombal tànk gu rëy gu mag gii mu ko joxaat bisub tey bii tubaarkàlla di samedi yàlla nañ ko fekk ca tal ko te nag poste yom ko daan jox nam ca daan gañee di ca am ndam président xolam di ci sedd yàlla na ngi lay jaajëfal. jërëjëf. ñu ngi lay ñoo ngi leen di sant nag di leen gërëm. di gërëm stafu Mariama bépp bépp bépp bépp. di santal Mariama nag président bu baax a baax parce que ki léble dafa gëm yàlla waaye ki fay dafa gore président Macky Sall tam euh, fonk na Mariama cëral na ko jox na ko cëral fii mu àgg ca sa nit boo bëggee. boo ko bëggee fi ko toll da nga ko fay tollale la mag ña waxoon rek ci Serigne Touba Mbàkke fii nga toll tollale nga nu boo fi weesoo weesalu nu kon nag loolu moo nekk ci diggante bu président Macky Sall ak Mariama di sante première dame bu baax parce que tam aussi xamna and bi ni mu yàggee te yàqu ci dara de ko gëna a vive Mariama Sall ciopité yu ñu nemmeeku ci ministère bu fonction publique ci programme Boris Tuké ci madame la ministre di rëbb la mu fay nekk lenteur administrative yi ñu doon fa jëlé wàññi nako bu baaxa a baax am programme bu mag bo xamante le président de la république daf ko fa def muy le programme PAMA programme PAMA boobu nga xam ne dafay jàppale administration bi pour li ñuy liggéey gën a gaaw donc ñu ñëwee gis commencé nañ ko dématérialisation bi commencé PAMA gis nga ko ñu commencé di décentraliser li nga xamante ne mooy les services de la fonction publique ndax fonction publique dafa nekkoon ministère boo xam ne amul woon ay services yu koy représenter

parce que loolu lépp bu ñuy ñëw Dakar jour ouvrable lañu war a ñëw te bu ñu ñëwee jour ouvrable loolu mooy bu dee jàngalekat yi tëj nañ seeni classe bu dee ñeneen nit bàyyi nañ seeni liggéeyukaay moo tax loolu yépp ñu jegeel leen ko ba nga xamante ne absence yi dafay wàññeeku PAMA boobu di vraiment programme bu am solo euh, ñu dénkoon ko nag le directeur Amadou jàll mu liggéey ci liggéey bu am solo defe naa ne fonction publique moom Mariama Sarr innové ko bu baax a baax a baax nek en collaboration avec les syndicalistes lu fi musa am muy négociation téwna ci dalam wax ak ñom ci fula ak ci fayda ñu déggo lépp rek ci njariñu Sénégal defe naa ne fonction publique ba mu jaar liggéeykat ya fa nekk tey ku leen interroger woon ah dinañ xam ne kat wax dëgg yàlla kii fi mu ñu indi moo gën fuuf fi mu ñu fekkoon donc loolu am solo la loolu nag yàlla moo ko def ci moom fépp foo xam ne jaar na fa dana fa bàyyi ay empreinte yoo xamante ne képp ku fa nekkoon danga naan bu ñu sañoon mu dellu si Kawlax ga mu jóge noonu la loolu dafa liggéey ci ay infrastructure ci social ci électrification ci canalisation lu nekk def na ko fa defe naa ne Kaolack tey Mariama Sarr du fa jaar ci benn mbedd di sëgg population Kaolack xam nañ bu baax njëriñ ba mu fa doon def ak la nga xam ne moom la fay liggéey. ndax liggéey boobu rek nag da koy def rek ndax delloo njukkal le président de la république. ndaxte ku nit ñi ñi nit ñi bari nañu y a million de sénégalais kon nag bu la jëlee tànn la da góor góorgóor def sa kéemtalaay kàttan ndax ki nga xamante ne moom moo la tànn ki nga xamante ne moom moo la fa indi du rëccu lam la fa tege woon. moom nag loolu mooy waral fu mu dem mu a fa engagement parce que fépp fu mu dem rek dafay bëgg a am ndam mu dem rek. dafay bëgg liggéey président de la république feeñ fépp fu mu dem rek dafay bëgg ñooñu yëg si seen bopp ci li nga xamante ne mooy le plan Sénégal émergent bi président de la république di def mm-hmm. donc c'est-à-dire moom objectif boobu la am mm-hmm. exécuter rek li nga xamante ne mooy yéene président de la république bay faal la mm-hmm. donc fépp fu mu mën di dem rek incha allah liggéey la fay def ndax loolu la xam ci yar ci teggin ak ci tey macha ah, kon am nga su coow lu bëree du moom waaye bu jëf ji réyee moom la ah, ji koy gaynde Fatma la yor kon daal euh, am nga yaakaar ci euh, ministère bi ñu ko jox ni dina ko doxal incha allah mm-hmm. fépp fu ñu ko yóbbu am nañ fa yaakaar dina ko doxal ndax liy doxal ministère mooy lan fulla fayda xam-xam xam nooy manager ñi nga xamante ne ñoom nga yilif xam nooy collaborer ak ñoom te loolu lépp mi ngi mi ngi ci moom am na leadership bi am na fulla bi am na fayda bi am na xam-xam bi am na xolu yërmaande boo xamante ne daf koy yërëm ñi mu nekkal ba nga xam ne seen diggante day ratax ñooñu dañuy sawar képp ku mu nekkal da nga koy yéene ndam ndax ni mu lay téye xam nañ ne fépp fu mu dem rek incha allah dana fa liggéey liggéey bi nga xamante ne moom la ko président de la république sant fa mu jaar yépp amul fu mu fu mu jaaroon tey jóge fa foo xam ne bu fa jaaree sëgg fépp fu mu mën a jaar bu taseeg ñoom dafay siggi xool leen ndax fu mu jaar rek def na fa loo xamante ne nit ñi xam nañ kan wax ji jëf ji lool. ngi nuyu téléspectateur wu 221 TV euh, di nuyu Touba di nuyu Sénégal man ngi madame Diop première adjointe au maire de la commune de Dias. sama ñëw ak vraiment ci ay taxaw seetlu la taxaw seetlu ndax nit aussi booy fekkee dafa am fooy dem fa ngay dem aussi na méngoo ak sa gis donc euh, sama ñëw ak euh, APR euh, yalla dogal comme ni ma gelé samay activité 2016 au niveau de Rewmi ma tok deux ans après 2018 à ah, ci la gisee ak madame le ministre Mariama Sarr yalla dogal na sax si Medina Baye si këram laa defee sama déclaration ne damay ñëw rejoindre le président Macky Sall mais ma jaralé ko ci madame le ministre Mariama Sarr ma gis ci mom ay qualités yu ma neex ndax jigen don jigen rek euh, euh, dañuy wax euh, ci lu gëna a bari que barrière la mais dama gis ci moom une femme bu nga xamné responsable machallah nit ko yalla may nit ko am dal nit ko am qualité qualité humaine donc buma ko noon wax tay dal duma mëna paré a mais japp na aussi ne bima ñëwé ñëwee aussi difa liggéey bama délo yëmbal

mais fépp fu ñu ci ma a dem dëkk bi yëpp dañuy génn àndandoog moom ba année boobu pratiquement yi boo suñu élection dañoo gagné fépp kon wax nañ ne madame Mariama Sarr c'est une femme nationale koo xam ne kii ñëpp ko bëgg fa Hadj Falilou Ndiaye di cousin ci madame le ministre Mariama Sarr ca Touba di dikkaat ci ay seede jëmee ci ki nga xam ni moo di madame le ministre waaw Mariama Sarr day sama xarit la sama mbokk la sama doomi bàjjen la sama lépp la ndax yaayam ak sama papa ñoo bokk ndey waaye nag malgré loolu day sama xarit dañuy yàgg ba ñuy jàng ba ndëgg ni ñu nekk ñu nekki xarit wax dëgg yàlla ma bokk ci ay homme de confiance am wax dëgg yàlla lu nekk lu bari mu de ko teg sama loxo. lan nga ñu mën a wax ci moom. li ma leen ci mën a wax mooy tey jii. boo demee ba am kër Touba grâce à moi ndax moom da daan ñëw di wut waaye moom xam ne Touba la sëñ Touba la yaakaar dafa war a am pour ñu nekk ci ci la taxaw ne ma dama bëgg wutal ma ko ma am pour ñu nekk nii ko sëñ Abdou Lahad waxoon ne ku fi am sa pour ñu nekk sa seere àdduna de seere àllaaxira loolee mu ne loolu laa bëgg ci loolu la ma jaaxal ma tam wutal ko kër gi tabaxal ko muy màggal ñëpp la ko fekk ay bokkam mo xam wa Kaolack mo xam wa Dakar ñepp ni ko fekk ay bokk ni ngeeram ak yëpp moo am ko kër ni ko ñepp amé muy nit ko xamni ku nit ku baax la waye nak li mérité nako li tax man ni mérité nako dafa liggéeyal Serigne Touba ci Serigne Touba ku ko liggéeyal mo mo añal la Serigne Fallou waxoon ne ñemewu mo bor dama am ak pay waaye Serigne Touba wutu bor dafa am pay Mariama depuis mo ma jaaxasoo ngeen jëmatu Serigne Touba rawatina Cheikh Saliou mbacke nga xam kenn ku rek xam na ak fi mu ko tegoon ci loo xam ne man man naa ci seer ndax am na loo xam ne wax naa ko sama benn xarit bërki dem bi ñuy ci Mariama ma ne ko Mariama di lu mu amul nga xanaa lu ñëwagul la waaye lu ne mën na ko am ndax toog naa sëñ Saliou seere ko loo xam ne nii moom ñëwaan na sëñ Saliou di ko seere ay ay ay ab taalib ndax wan na ko ne gërëm na ko sant na ndax mën naa ne pendant 18 ans yoo xam ne mbubb bu mu sëñ Saliou sol tabaski Mariama Sall ko xotti hmm? te ndax loole fi mu témaré laa bëgg a wax ba ñëpp xam ne taalib bi dëgg ko ñor keroog ba mu jàngee ba li ba war a tàmbali liggéey premier salaire man mii la woo ne ma man de sama salaire damaa fay premier salaire ci boo sañoon ba la ma ci lekk dara naa ci liggéeyal Sëñ Tuubaa ma ne ko kon li ngay def mooy non da nga ma bëgg a wax ma ñaata maanaam da nga ci bëgg def ma boo ko defee xaalis jox bi sëñ bi moom du laal xaalis bi du ko kii te comme jëlee kees googu la koy sotti ci wetam rek. kon nag li ma bëgg nga xam ne boo ko defoon daal dana ko jariñ wala ko jariñoo wala mu jox ko nitu yàlla bu jariñoo ko mu ne ma mooy lan ma ne ko nga xot yére ñaw mu ko xam naa téere bu ko man a ñawal nga jox ko benn mu sol ko benn mu gis mag lislaam yi nga xam ne ñoom lay jox yére mu jox leen ko ci boobaa ñooñu sol ko ci jaamu yàlla moo gën nga di ko jox xaalis wér ko jox mu ne kon loolu laay def madame la ministre Mariama Sarr di jigéen ci langu politique di taalibe bu dëkk ci Cheikh Ahmadou Bamba waral màggal gu jot mu taxaw ci xidmal sëriñam te kenn mënu koo naxi lépp lu waay di def ci moom te muy dëgg ci yow di ko gis muy taalibe sëñ Saaliw nag gëm ko lool muy dëgg ci moom def ko ngir njistal def ko ngir politique def ko ngir dal ba muy nekk ak sëñ Saaliw googu étudiante la loolu la téye ba léegi taalibeem ji dafa yàgg da koo gëm di ko dund di ko jëfe loolu moo tax ba mu màggalee ba tey ñibbiwul yàlla def looloo tax yàlla def lii fekk ñu fii ci Touba ñu ci sant yàlla bu baax nag ndaxte ni mu daj ci màggal gii ni mu selale ni mu selale xolu nit ñi hmm. ñépp bi ñuy tàggoo dañ ko doon wax ko nii nga selale suñu xol bala ngay génn Touba yàlla na ko sëñ Touba serale sa xol ci bisu euh, màggal gi ci remaniement bi di ñëw. ñu gis kër buntu këram ci jour màggal gi mu fees daal oto oto yoo xam ne oto yu personnalité. mu def ci ay nit mu ñu indi leen ba ñuy. ñuy mu xaar mhm. moo leen di luyal ay yu ñuy sol bu ñu ñëwee fii dara du manqué màggalu Tuubaa gi bañu ci dara dara dara ba pare nag boole ci mu laxasaayu nag di nekk nit ñi di leen jox ñuy lekk di leen jox ñuy naan. su yëkkatee dara sax nga ne ah madame la ministre bàyyi mu ne la fii ministre nekk fi taalibee fi ne ma ne damaa bëgg tuyaaba ne yéen mm. loolu dafa fort loolu gëm-gëm la mm. nit ki nag li am solo mooy dëggu gis nga bépp boo dëggoo mm. di def lu baax yéene nit ñi lu baax lu baax rek ngay am kenn du ji lu baax récolter lu bon amul fenn ku ji lu baax lu baax rek ngay récolter te Mariama Sarr lu lu baax rek la yéene nit ñi lu baax rek lay def motax lu bax rek lako yalla merci beaucoup maman. c'est jërëjëf ñu lay remercier bu baax tan nañu. Mhm. di sante nak ñepp mhm. di sante militant yépp mhm. wa Kaolack wa Dakar. ñom ñepp képp ku engagé wu derrière madame le ministre Mariama Sarr ñi ngi lay sante di la gërëm di la ndokkel ci bis bi te xam ñi teew ak ñi teewul ñi wax ak ñi waxul te ñepp la seen xol sedd ni ñaa féliciter ndax na képp ku ko jégué rek da ko yéene lii ndax da ngay xam lim ci daj won daal ñi ngi sante bu baax di remercier encore le président de la république di ñaan yalla yalla may ndam gouvernement bu bes bi di ñaan yalla bu ci saytane man dara yalla jubale len déggale len may ñun ndam ba sénégalais yi xamné ne yéene bi président de la république amoon ci ñoom ba légui mi ngi ci té inshallah dinañ ko motali bu neexee yalla ay taxawayam ci waxtu wu magal jotee ay taxawayam ci ligéyam ci mbolém poste ministériel yi nga xamné ci lañ ko tab ci xitmal serignam waxtu magal gu mu ciy fësal ay don di ci fësal ndimbal ñeel ñi nga xam ne ñoo di ñiy tukkee fu nekk jëm si ci màggal bi yemul ci jëmmal boppam ci taalibe nde mi ngi jokk ci kër sëriñ saalihu mbàkke doom xalifa ci cheikh ahmadou bamba xaadimu rasul bonne chance bonne continuation pour madame la ministre ak ay compagnie